America! là. Oh le monsieur, ouais. il va casser la télé. <laughs> oh my God. Euh, il a frappé Neymar. C'est à l'image, c'est à l'image de presque tous les supporters parisiens, on peut mm. a vu l'image des, des, supporters des Ultras qui étaient au lendemain, donc, je pense trois jours après la défaite. Première Même là, vous avez la mine triste. Hein. séance <laughs> d'entraînement, <laughs> la catastrophe pour euh, digérer cette défaite, cette énième défaite. Non, je me rappelle, euh, on revenait de Denis Biramda <laughs> était aux commentaires et quand le PJ égalisé, il a failli le volant. on <laughs> finit avec euh, la vidéo ou les vidéos. oui oui on, on finit avec cette euh, information du basket euh, aux États-Unis le géant sénégalais Taco Fall euh, honoré par son université devant sa maman. il y avait un moment c'est un moment d'émotion euh, exceptionnel pour regarder. l'espère, que ce soit le Anthony Davis, ah, oui, Galais, euh, d'autant plus qu'il est euh, sur les papiers d'Adidas. Oui. Voilà, en tout cas, c'est Takofal, il mesure 2 m 29, il a 23 ans actuellement.

match, on termine avec ça. Euh, en plein match, un joueur se bat avec un supporter. C'est exceptionnel. deuxième division anglaise. anglaise voilà. En tout cas, sa peine est tombée. Une interdiction de stade, une... Euh, peine de prison. Une peine de prison une et, et une amende. peut clarifier le contexte de ce match. Birmingham et Aston c'est deux équipes de la même ville, de Birmingham. On un derby de Championship. Voilà, mhm. du sort, c'est celui qui a été assommé, qui a marqué a le victorieux pour Aston Villa. en tout cas, c'est. Le Dieu d'aujourd'hui un beau euh, discours. Adama, et Mamadou Ndiaye, euh, de grands fans, euh, je sais pas, ou bien de grands Internaute. Internaute. Des tuteurs. Bon, c'est un plaisir, en tout cas, c'est un plaisir de partager ce plateau avec, lui. C'est un grand plaisir. Il fut mon professeur d'anglais, mais aujourd'hui, on va parler anglais aujourd'hui. <laughs> tout à fait. Et bon, père. nekk ni de yaa waaw daa mel ni suñu doon nii de maa war a tëjee. waaw da nga ni ku xaw sedd sax yooyu. Ah, ah, ah, démb nag ñi ngi nekkoon euh, sixième journée bu saison course hippique euh, bu 2019 bi. démb nag ñu ko doon dawale foofu ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop foofu ci Thiès kaay waaye nag bala ñoo ñëw ci li nga xamante ni mooy course bi. dañuy dem ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop ñu seeti bu na ama Diop bi nga xamante ni borom fas la waaye mu yëkkati ay kàddu yoo xam si ni suñu micro mu nekk kàddu yoo xam si ne bi saison bi tijjeeg léegi nan la ko jàngate waaye tamit euh, bërki dem li nga xamante ni moom lañ fi waxtaane mooy suñu émission bi nga xamante ni moom lañ génn mu nekk turu fas yi moom tamit mu tuddee benn fas euh, naawel naawel nag euh, nekk dëkk boo xam ne si ni mooy dëkku euh, ki nga xamante ni mooy yaayu maam jaara bu sa borom poroxaan foofu la mmh. tëdd mmh. naawel nag foofu la maam asawala soxe ko ki nga maam asawala bi nga xamante ni moo jur maam jaara bu sa borom poroxaan mu dem fa di jaare ji ñu woo ko téléphone ni ko fasam am na doom mu daal di koy jël tudde ko tur woowu ñu dem seeti bu naa ma mi nga xamante ni wax na loolu suñu micro ci hippodrome ko Macodou Diop ñu seetaan ko ci ñëwaat ci biir plateau course yi de boobu ak léegi macha allah taxawul mi ngi dox. gaa yaa ngi dawal fas yaa ngi daw. macha allah lool la laa laa ci mën a wax xanaa régler problème départ yi rek mooy am tuuti problème rek te c'est pas c'est sax grave ah. Mhm. loolu daal moom laa ci gis daal. waaw loolu daal laa ci gis. ah ñu yokk prix yi rek yokk prix fas yi. mais prix nga yaakaar yokkuñu ko waaw mais ñu ñu gën koo amélioré quoi <laughs> loolu daal fas dafa metti ci jockey bi ci par borom fas bi ci entraîneur bi. Mhm. bon tey maa ngi di benn deux bu ñuy wax naawel. naawel waaw doomu solo de minu la maa ko juddul tey lay soog a tey lay soog ñëw si course daw si. naawel de ca wetu Porokhane la. waaw waaw waaw waaw. kooku wala maa asawaale juddoo. damaa dem siyaare ji foofu di wàññeeku. waaw ñun ma wajal bi am na doom ma ma duppee dëkk ba. waa gis nga mu wax ci li nga xamante ni tamit mooy yokk prix yi ak wàññi ko euh, loolu lépp mu ñu ko wax ci ci ci ci ci saison bi dama ne ko bi saison bi tijjeeg léegi. nan la nan la gisee nan la gisee nan la gisee kii su ko defee ñu daal di daal nag kii ñaari jockey yi nga xamante ni dimanche passé nag dañoo marqué seen empreinte jockey bi nga xamante nii mooy Gadiaga ak jockey bi nga xamante ni mooy Cheikh Sall ñoom ñaar nag euh, dimanche passé dañu dawal dawal boo xamante ni dawal bu rafet la ki nga xamante ni mooy jockey Cheikh Sall moom dafa dafa dañu jukki deux ans yi moo waroon fas bi nga xamante ni mooy Rayane dañu jukki deux ans yi rek mu toll ci bi ñëpp jukk ko waxee woon noonu la ko defee ba ñëw teer raw bu rafet nga xamante ni nag mooy jockey Gadiaga moom moom dafa sàcc ki nga xamante ni mooy Mantoulaye sàcc boo xam ne si ne sàcc bu rafet la vraiment dàqanteeg moom ko bu rafet sàcc nag boo ko déggee du question jël yëfi jàmm dara ñëpp a jóg ñëpp tribune bi ñëpp a ñëpp ko félicité ñu seetaan loolu ci suñu biir plateau du ñëwaat bon rawante bi c'était pas difficile parce que dafa nekkoon rawante boo xam ne rawante naax ba pare parce que boo xoolee dimanche bu le man maa raw ak ko gis génn ba yegg fas bi tamit nekkoon fasu deuxième tour am en même temps temps yi fas bi dafay daw progrès xam nga di nekk fas boo xamante ni daf may wan ni carrément pare na actuellement pour pour moo tax euh, tey bi ma xam ne tamit Ramatulaay fas bu gaaw la bon dëgg la fas bu gaaw la mais tamit sama fas yéexul ba pare tamit xam nga comme li ngay wax rek euh, toujours c'est l'expérience qui fait la différence. Ramatulaay ñëw na Auguste raw na Auguste raw na premier numéro 4 Auguste deuxième Ramatulaay kenn tey raan kenn na non non donc ndeysaan mooy rouge blanc yi maître Diagne non xoolal booy bi nee na jógeen taxaw numéro 4 bi nekk raan waaw ren boobu bañ bañ nangu waaye xale bi maa ko bëgg xale bi maa ko bëgg mu nekk Cheikh Sall ak ki nga xamante nii mooy Gadiaga Gadiaga nag jockey bu mag la moom ndaxte dem na France def ay échange ay yoon yoon war na tamit France rawante fa. yaakaar naa loolu moom duñu bett ci moom mais jockey bi nga xamante ni mooy Cheikh Sall moom démb moom tamit def na euh, rawante boo xam si ne rawante bu jonge laa ko tuddee. jonge malal ah, malal ah, jonge dafa baax. xam nga bariwul lu ko jokkoo yi def moo tax bi ñu ko defee dinañ dina baax ñu di ko génne. ndax boo léegi yeneen jokkoo yi moom di xaw a ah, du de moom ay duutam moom ay parce que dañoo génn ci box yi rek mu ne nii stade bi jug leen taxaw. ba teer bi muy agsi mi ngi naan ne fas yi ci ginnaawam ndànk daf ndànk eh, eh, ki ko mën ak ki koy jëm bokkul ah, bokkul moom nag démb la la wane beneen yoon tam ñu dagg ko de comme ni ko gars ah, beneen yoon de <laughs> yàlla buñ ko teelee préparé ko xale daf leen def comme ni Cristiano Ronaldo di wax calma calma. Ah, calma calma calma <laughs> kooku am na liggéey ah. suba xaw <laughs> ma ñu dem ci programme bi. <laughs> ñëwal ñëwal ñu dem ci programme bi ñii dem ñu ngi fa amoon cinq catégories première catégorie bi ñu ko doon daw ñoo nekk plus de deux plus de trois ans yi mooy moo di am ñett euh, ci distance su 1650 mètres bi ñu bi ba tey ki jël raw gàtt gi mu nekk Auguste temps 2 minutes 18 secondes deuxième bi nekk euh, Mantoulaye bi nekk. Euh, Nogay euh, Ngone euh, Ngone Latir quatrième bi nekk Baraka 2 troisième bi nekk Mbar euh, Mambouki quatrième course bi ñu bi ñu ko doon daw ñoo nekk près de deux ans yi mooy Mawli am ñaari at ñu ngi doon daw ci distance wu. ou 1200 mètres bi ñu dawee tere ki jël nekk deuxième bi nekk Moxsin troisième bi nekk Linguère Teeñ quatrième bi nekk Noval cinquième bi nekk ki nga xamante ni mooy Ndiouga Fall. troisième course bi ñu ngi doon daw ñoo nekk groupe 3 ñu ngi doon daw ci distance su 2200 mètres bi ñu taw bi teel ki jël raw gi moo nekk président Cheikh temps 3 minutes 09 secondes deuxième bi nekk Mingone troisième bi nekk Major Rajab quatrième bi nekk Borom Bagdad euh, cinquième bi nekk Barakatu quatrième course bi ñu ko ki jël raw gi mooy Medina temps 3 minutes 04 secondes deuxième Faydu troisième euh, Major quatrième Duma Yeen cinquième Very cinquième course bi ñu ngi ko doon daw ñoo nekk groupe 2 ñu ngi doon daw ci distance 2200 bi ñu daw ba ki jërëw gàtt bi mooy Refane Diatta bu professeur Cheikh Thiam temps 3 minutes 07 secondes deuxième ñotti troisième Adja quatrième Mbar Ngone cinquième Daaru Sam loolu moo nekkoon ci hippodrome Demba Kodu Diop. ci week-end bi nekkoon sixième journée. Hmm. démb ci hippodrome Demba Kodu Diop. Euh, après di nga ko gën a yaatal. ëllëg incha allah suba jàmm ci émission <coughs> merci beaucoup incha merci mais maa ngi fàtte maa ngi remercier bu baax nag tey kii ma sañseel hmm. waaw mu nekk Ameth euh, nekk euh, véritable couture hmm. tey moom ma sañseel Ameth nekk sama xarit sama doomu ndey numéro téléphone nekk 77 874 06 26 Ameth nekk foofu ca parcelle Merci euh, Ahmed euh, euh Malal. Euh, tu avais un communiqué de l'ANPES pour nous. Oui, euh, les commissions euh, féminines de l'Association nationale de la presse sportive et de la Convention des jeunes reporters célèbrent la journée de la femme. Ce sera samedi 16 à l'auditorium de la maison de la presse sur la Corniche. Un panel sur le thème suivant, pesanteur sociale. Euh, sur les femmes dans le milieu du sport. Euh, ce sera donc samedi, animé par euh, plusieurs personnalités du, du, monde du sport. Mm -hmm. Ce sera donc samedi le matin à la Maison de la Presse. Tout le monde y est invité. Non, brave fille de l'ANPS, voilà. vraiment, oui, ils sont en train de s'imposer. Ouais. Ariel Jorniaï, voilà. et sur le thème sport et l'islam aussi. Voilà. Merci, merci à vous les amis, merci Malal, merci Adama, Amadou merci, à euh, vous aussi, Père, merci à toute l'équipe technique qui nous a aidés à la préparation de cette émission, à Doutso, ouais. Voilà, ah c'est vrai, c'est Et nos maquilleuses aussi. Ah <laughs> euh, puisqu'on personnalise à Vieux Diouf Et à Baï. <laughs> voilà, on se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de votre magazine Sport à la Une. Au revoir.